grand combat baa ngi noonu Salle Ndingler Salle Ndingler Almami ña ngay liwaatoo ñoom bi mu fi mujj Boy Pambal la fi daan almaami bu mu fi mujj fal Irak la fi daan mercredi 17 juillet 2019 fii daal ñu ngi organisé par Amath Dia Sall Ndengler danoo almaami lay wuyoo Sall Ndengler almaami ñu ngi liwaatoo ñoom ñaar mépp na dañuy xeex door na cokkaas almaami Sall Ndengler almaami ña ngay mbaaru danoon na la xeex almaami door na Saal Ndengler jël na ko Saal Ndengler takk na almaami caxabal na ko daan nan almaami Saal Ndengler mën na ko daan ko Saal Ndengler daan na Saal Ndengler takk na almaami caxabal na ko daan nan almaami Saal Ndengler mën na ko daan ko Saal Ndengler daan na almaami mbërëm Pape Demba mi daanu na Saal Ndengler daanu na da koo takk mbot ko almaami daanu na jaaxle mbërëm Kër Masar mbooloo mi sama mbërëm xarit bi